bisimila mbokk internet yi dal leen jàmm ci Tactic TV ñu ñëw ak yéen ci coowal kawteef li nga xamante ne moom la ñëpp di waxtaanee ci réewum Sénégal jëm ci wàllum góor jigéen jikko la am jamono lu ci mënti am mel na ni mbirum góor jigéen mi ngi bëgg am doole ci biir réew mi li koy firndeel di place gi nga xamante ne moom la am ci actualité Sénégal mbirum LGBT ak coow la ca aju waaye itam ñaari xibaar yu mag yi xew ci ñeent fan yi nii bi ci njëkk di lu tolloog ñaar fukk ak juróom ci ay waxambaane nekk ay góor jigéen ay takk der jàngalu góor jigéen yi ñu duggal ci biir réew mi jagleel ko xale yi ba tax Mame Mactar Gueye bu Jamra ak mbooleem association yi xeex mbon jóg taxaw temb di sàkku ci nguur gi mu jël ci ay matuwaay ca def ci ay jéego yuy war a mën a tax ñu xeex mbir mi ci biir ayu bés gii ñu nekk woy takk der yi teg nañu loxo lu tolloog ñaar fukk ak juróom ci ay góor jigéen ñoom ñëpp seen tur yaa ngi ne fang daj ci biir l'internet bi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu tukkee ko ci waa Sénégal 7 ñaar ci ñoom oo Njaay ak Afal ay xale yu ndaw leen ndax seeni at mu ngi toll ci fukk ak juróom benn kenn kaa ngi dëkkee ko ca Pikine ca des ca Tubaab Jalaaw biir góor jigéen yooyu M Diop ab élève la ca lycée de la Fosse MM Ndiaye bokk ci ñoom nekk ab agent de sécurité ca université bu Ndakaaru UCAD ba tey bokk na ci biiri góor jigéen yooyu ki wuyoo ci turu élève Diagne nekk ab tailleur foofulee ca Parcelles Assainies moom tailleur góor jigéen bi fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre bi ñu nekk moo tombé woon ak anniversaire am nekk itam bés bi nga xamante ne ca la ñu naroon a célébrer seen mariage ca Sacré-Cœur la ñu loué ab l'appartement bu juróom benn junne ca fay junne ngir seen décoration leader ba dafa façon yéene ca bés boobu ñëw ñaan si ko waaye daanaka ba mu yegsee ca l'appartement ba dafa bett ki nga xamante ne moom la bëggoon a ñaan def ko soxnam astafirullah mu tëdd ak beneen góor jigéen nekk ab assistant social en médecine moom waa jooju sax daanaka moom mooy ki dawoon ba ñëpp di ko wër waa sa yu góor a góor moom nu muy demee ah xanaa lii la olof njaay di wax naan la mu saf ka ko ma co xam auzu billah astafirullah subhaanallah